waa ñaari tëli ñi ngi yëngal ñi ngi tànn ni pour lay saa nii de waa ñaari tëli ñi ngi commencé de waaw waaw tous nag gaay commencé lan de lépp ñaar buñ sotewoo laa fii da ngay ah. buntu hôpital CTO. ministre de l'intérieur mooy jàllale ñu ministre de l'intérieur moo nekk nii nga xamante ci biir Medina instant yi nii ministre Antoine Diop nii doxantu ci biir Medina. en direct de Grand Yoff. waaye salaamaaleykum ça ne veut de ça kenn

ñu nit si ya Ay, carajo, Booy booy ñëwee dama la faa booy nag tey Unazile kimo jamba, unazile sana social. Mshe bwa. Bwa. Mbona? Mzee tunauzwa tu mundani ngine. dañ koy këf de. waaw bu génnee sa loxo. lacrymogène kër jàmbur kër kaw jàmbur xool lacrymogène kër kaw jàmbur. non. si appartement jàmbur rue 6 Médina appartement jàmbur lañ doon lacrymogène. Grand Yoff ah Grand Yoff sama koña sama koña waaw waaw yoole rek yoole rek dëgg sende yoon waaw nee nañ déedéet nanguñu ko mu fo waaw génn ñu ngi taal dëkk bi yëpp ñu koy taal waaw mi ngi noonu waaw ñu ngi fii ci commune Dalifort eh, Dakar gaa yaa ngi taal mu ko gisee gis nga fii yëpp ay taal la taal nañ dëkk bi yëpp waaw taal nañ taal yu metti nangu wuñu ñu ngi koy taal gaa yaa ngi daw di fay di jéem li ñu mën moo na waa kii ngeen gis ni moom day xëcc pëne yi bëgg a fay taal bi ndax bañ mu laal oto yi moo tax mais du yomb ndax day jafe ndax pëne bu tàkk moom ba jàpp moom. dindi ko dina metti torop waaw mi ngi nii moo tax dafa bañ mu laal oto yi ah waa dëkk bi de dañ nanguwuñu couvre-feu bëgguñu ko ñu ngi ne Sénégal ñépp tëdd nañ am na ñi xam ne nee nañ nanguwuñu couvre-feu ñu ngi génn ci dëkk bi ah taal bi metti na trop yi romb fi sax day jafe kon Mak TV ni mu koy faral di defee saa su ne rek ànd ak yéen di leen wan li xew ci dëkk bi. topp information yi ba ci biir a biir a biir fa mu gën a sësee ñu dem jëlee ko fa indi jox leen moo tax ngeen bu leen di fàtte di abonné wu seen chaîne Mak TV waaw ndax information yu leer yi fa lay xewee liy jëriñ ci dëkk bi ak li nga xamante ne moom la dëkk bi di dund fii lay xewee kon ñu ne saa su ne di leen abonné Mak TV ndax ngeen di mën a am seen information au temps réel